cof na ko sànq. Mhm. Euh, di agression bi nga xamante ne amoon na euh, vidéo yi ñëpp gisoon nañ ko sur le euh, net. Mhm. jàpp nañ ña nga xamante ne ñoo defoon jëf ci ñaaw jooju. waaw wala ñenn ci ñoom agression bi nga amoon ci HLM 6 ci bëccëgu ndar kàmm. Mhm. ñu gis ab waay bu téye saak ay borom moto ñëw daal di koy wër def pompe a gaz génne itam li nga xam ne moom mu nekkoon ay machette. yóbbu lu tolloon ci 6 millions de francs CFA muy juróom benn million. ñuy fàttali jàppee vers de 5 heures du matin ci boîte bi nekk ci Almadi euh, muy five ginnaaw ba mu fa euh, génnee moom foofu lañu ñu ko jàppee perquisition bi nga xam ne def nañ ko taxoon na <laughs> ñu daal di jël euh, moto boobu le ñu placé woon leen déedéet du du bii da du bii bi moo mujjee du bii du bii com nag waaw kañ mi ngi noonu di di di ñëw boobu beneen la dafa da nga da nga da bi beneen kaa la fi mu toll Sénégal moom saa boo xëyee rek kaay <laughs> euh, day bari donc ñaar ñi nga xam ne jàppoon nañu leen ci euh, boîte bu five ñu ngi leen toppee woon euh, association de malfaiteurs vol en réunion avec usage d'armes pompe blanche pompe d'armes blanches et mm-hmm. pompe asphyxiante mooy pompe à gaz boobu nga mm-hmm. xam ne moom la ñu defoon waa ji pour mu mm-hmm. du am mooy usage avec usage de moyen roulant mooy moto yi nga xam ne. Euh, téye woon nañu ko ñu defere la woon euh, ci kanamu euh, parquet maa mi ngi koy wax sànq rek. Mm-hmm. waaye gis nañu ci image yooyu itam bi mu amee dafa am taximaan bu doon dem xaalis bi wa doon. tolloon ci 990 1 million la ñu waxoon sax mais bi ñu ko jàppee moom ci maalu oto bi fekk nañ fa 990 mille bi yëf yi amee nag le ministre de l'intérieur Jean Baptiste Tine euh, dafa euh, waxoon daal ne euh, mbir yi dafa bëgg ñu mu ñu leeral ko parce que ay braquage yoo xam ne dafay am en pleine journée loolu itam baaxul ci sécurité fi nga xam ne moom mooy Sénégal te vidéo bi itam nekkoon lu viral lool taxi bi ñuy fàttali ne dafa am rek am ñu capture xam nga caméra de femme am ñu capture daal ne taxi immatriculé AA 734. Mhm. Euh, moom moo daal jël liasse boobu le euh, nga xam ne nag euh, daal nañu ko ci ki ñu ci jàpp tam muy wuri sow moo du ngom nga xam dañu leen doon seet lu yàgg yàgg ndax bi mbir mi amee naam jàpp nañu ne mais sûreté urbaine dafa continuer di def li nga xam ne moom mooy enquête bi man mi mi ngi koy wax sànq ñi ngi am ñoo xam ne nag fii dañuy gis à chaque fois bu ñu a aw ñu dem Gambie mhm. soit nga xam ne moom mooy Sédhiou euh, ñi nekkoon en fuite euh, muy ku ñu naan laay laay ñu koy mu tudd Mamadou Diop ak Pape Ndaw mami wax na ko sànq Mouhamed Gueye ñu koy wax euh, Petit Mouha Ndioba Sagna Modou Dia ak kenn koo xam ne Ndiogu Diop la ñu tudd ñoom ñëpp dañ leen identifié euh, pour wane ne ci gang boobee nag la ñu euh, daal di euh, bokk ñu gisoon tam brigade spéciale bu sûreté urbaine dafa dafa continuer woon ay investigation wam ngir daal def ay recoupement interpellation yi kenn ki Sédhiou la ñu ko jàppee waaye ñi ci des ñu ngi leen jàppee fii ci cité mixta fooy fi ngeen di romb à chaque fois bu ngeen ñëw mm-hmm. pour liggéey si recoupement yi ñu def tam tax na daal ñu jéem a xool itam appartement boobu yi nga xam ne ñoom fa la ñu nekkoon bañ ñu demee ba localiser leen waa sûreté urbaine fa la ñu dem def euh, descente daal di leen di interpeller le 19 septembre vers les coups de 18 heures 10 minutes fii ci euh, cité mixta euh, place nañu leen en garde à vue ñoom nag wax nañu ne lañ leen di toppee ñoom ñoo ko def waaye dañuy joxañ baaraamu tuuma kii di Seydina Mohamed Gueye ne daal kooku moom mooy chef de gang bi te loolu yëpp moom moo ko doon def am na ci keneen koo xam ne itam moom mooy Mohamed Gueye moom nee na moom moo aspergé Euh, gaz boobu boobule neutraliser itam euh, victime boobule euh, mën tax ñeneen ñi mën a ñëw jël li nga xam ne moom mooy sac bi comme ki ñu jàppee Sédhiou ñoo ngi ko jàppee ca Tanaaf côté Marsassoum mm-hmm. moom foofu la awee ngir mën a rëcc ñi nga xam ne ñoom ñooy policiers yi li ñu def nag ba planifier forfait bi nee na vendredi 6 septembre ñoom ñëpp dañoo toog waxtaanee ko fii ci Grand Yoff may mi ngi wax ne Grand Yoff la ñu dëkk. Mm-hmm. toog ba ñu ñëwee nag dañoo wax ne kii di am di di chef de gang bi. kooku moom moo leen invité ngir ñu daal di eh, waxtaan planifier tam ni ñu defee agression boobule muy attaque boo xam dañu ko planifier ah, waxtaane ko ku nekk ak rôle bi nga xam ne moom nga waroon a eh, jouer eh, ci mbir moomu leen ci alentour banque islamique bu Sénégal nekk fii ci rond point bu EMG foofu daal la ñu premier groupe bi daal dem positionné wu toog fa ñeen ñi toog téye seen ay moto Moustapha Touré alias Amdi nag moom moom moo duggoon ci biir banque bi mm-hmm. ngir mën a xool kii def opération bi ak ban heure lay génn bu mu génnee nag ci ko suivre informé itam Moustapha Touré wootante ko daal dina ko daal euh, cible bi euh, mu ngi ñëw ñu daal di jël euh, Jakarta ndax wax nañ ne waa jooju importante somme d'argent muy 6 millions de francs CFA moom la téye woon bi ñu demee nag ba jàddu koñ bi xam ni kii moom mooy seen cible ci la kenn ñëw pompe ko à gaz keneen ci génnee machette mooy comme image yi ni ngeen ko doon gisee à travers le net. d'accord ah doy na waar taximan bi. waaw delloosil ma moom dafa mel ni liyaasu xaalis. waaw moom waxuñu ne dafa bokk ci gang bi. wala bokk ci waaye image yi nga xam ne caméra de surveillance vidéo surveillance. gis ko mm-hmm. ñoom bi ñuy dem. xam nga saag bi dafa ubbeeku xam naa ci xëccoo bi. Mm-hmm. am benn liyaas benn liyaas bu wadd moom xam naa benn siise siise la bu bu koppandi man tourné def nii jël xaalis bi dugal ci otoom. mais caméra de surveillance dañ ko gis parce que biñ ko visionné. dañu bi ñu koy wax nii sax nii la ko nit ñi di door a bàyyi xel parce que fii nii. gis nga ko ne waaw fii lañ koy capturer matricule baa ngi feeñ ci suuf saag bi liaas baa ngi noonu ci suuf saag bi gis nga saag bi uh-huh. moom lañ for nii mais dafa ubbeeku léegi xaalis baa nekk nga liaas bi xaalis bee benn takku xaalis la par xam boo jógee ba ay réalisation yéen a mën kay di nga taximaan baa ngi nii nag xoolal xoolal ubbi portière bi for for dugal dugal eh, dem waay daw xam ne tax bi un million la même mm-hmm. bu ñu ko jàppee tak parce que moom la ñu gën njëkk identifié waaw neuf cent quatre-vingt-dix mille lañ ci fekk maanaam dix mille rek la ci rocc moo ci gën a gàtt wërsëg <laughs> mais mais oh je suis ñu ngi ñu ngi jaajëfal waa sûreté urbaine nag. ci liggéey bu. am na solo parce que insécurité moom dañ daan gis agression agression bu njëkk. da leen di alerter. Mm-hmm. da nit ñi di alerter. Mm-hmm. nit ñi dañu wax di alerter di di di mm-hmm. wax. parce que képp koo xam ne yaa ngi aw fii mu ci Patte d'Oie boo ñëwee ba foofu nga xam ne ay 15 man dañu fay togg ay ñi fay agressé guddi bari nit ñaa ngi fay romb police mi ngi fay romb gendarmerie mi ngi fay romb parce que boo doxee à 100 mètres am na euh, policiers yoo xam ne naam loolu seen liggéey circulation bi la ñuy defee waaye xam nañu lu nekk foofu mhm. garage mu ngi fa mais am na ci ay nit yoo xam ne itam du ñu du sut non seulement mhm. bu guddee ñooy ñiy këf téléphone yeeg yooyu na fa mhm. euh, police ak gendarmerie bàyyi pont échangeur boobu dëgg la bokk na ci pont yi yi gën a yi gën a imprudent mhm. parce que boo yéeg foofu ñoom dañuy laqatu doo leen doo leen gis moom moom yàlla bu chauffeur bi teggi tànkam rek moom boobu mën nañ la fa def lu nekk mais kii kii aw ci suufu gir yi kii ñu jël xaalis bu góone dafa mel ni daf dañ ko xam c'est quelqu'un bu ñu xam parce que dama yaakaar ne xanaa waruñoo mën a comment ils su que war na am montant xaalis bu muy dem jëli ji noonu banque comment ils ont su enquête bi waaye man jàpp naa ne jàpp naa ne ko xam parce que xam ko moo tax ñu mën a jël kenn mu ànd mu toog ci banque bi di xool di xaar xam nga sax parfois dañuy wax moo tax c'est très important mm-hmm. banque yépp am na vidéo surveillance mais booy dugg ci banque visite bi nga fa fekk wax nga wax nga sa yitte ndax dafa am koo àndal ndax dangay ñëw retiré chèque parce que mun na ñëw ci banque rek toog di observer ku jël xaalis ak ku jëlu xaalis. Mhm. Mhm. tey bu kii ñëwee dugg da nga koy jox ticket. parce que doo dugg ñuy dugg ci banque. exactement ñëpp xam na ko da ngay jox ticket. nga xam da jël chèque dangay ngay déposer xaalis. am ngay jox ticket rek nga dem toog. nga dem toog mais mhm. ki lan lan lan nga fay def. munoo ñëw di observer kuy jël xaalis ak ku du jël xaalis. ñaari option moo xam soit daf dañoo xam ñoom dañuy xëy dem ci banque yi di xool ñu xaalis soit nag man li ma gën a jàpp mooy dañ ko xam parce que mën a xam mhm. heure bi muy ñëw man de loolu ba mën a euh, wax na xaalis baa ngi ñëw comme <laughs> loolu dafa ànd ak acte de préméditation mhm. ils ont eu le temps de s'organiser ça veut dire qu'ils avaient nga ñëw sax même ci banque boo xam te xam nga dafay bëri nit mun mhm. nga ñëw fekk ticket bi ñu lay wax ni foog nga xaar quinze vingt personnes jàll nga war a mën a jàll kooku day am possibilité bàyyi xel kan mooy jël ku dul jël moo tax peut-être foofu la difficulté bi nekk mais beneen bi mooy une telle somme d' nag la ko nit mën a jëlee génn noonu quoi di dox nii. Mhm. loolu tamit benn problème la jël càq woon càq càq ki ñu gis danoon dox no non nekk woon ci scooter. scooter la nekk ci scooter la nekk dafa ki yor saag bi soxlaa ji mayaat da doon dox ki ñu agressé. jël saag bi ci moom xool ko. ci moto la nekkoon ci moto la kon xëy na loolu ñu rëcc ci euh, vidéo tous les businessmen oh, xam nañ ko moom moom dañ ko yónni woon ndax après def na entretien ak ñenn euh, ci tasu xibaar yi mais Dakar mooy xat am embouteillage boo xam ne ñëpp xam nañ ne ñuy jóge banque ñu ci bari buñ ne cëpp dañuy jël moto dem di nga gis ko am oto mais daf koy gaare pour yàkkamti jël cag-cag dem mhm. kon ça mhm. veut dire que ñu xam nañ ko wala xam nañu ak lu leneen au moins mu am benn minimum de sécurité mhm. ci boo retiré benn somme d'argent boo xam ne yaa ko jëlee ci banque cette auditionner ñi nga xamante ni ñoo nekkoon de caisse ce jour là maanaam ñi nekkoon ci biir banque bi parce que information bi wax dëgg neex yàlla. nan la def ba fuité nan la def ba fuité man jaaxal na parce que nit ki sax bu fekkee ni par exemple dafa war a xëy rek jëli ji xaalis mais amaana moom wala boog nit man dama jàpp nit koo xamante ni am na xel wax dëgg yàlla du war a jël yenn somi dinaan diw maa ngi jël yenn somi bu ñu waxantee dëgg rek donc tey non seulement xam nañ ne banque boo fa demee dina am benn temps de latence boo di nga toog di ko xaar parce que minimum dix quinze minutes di ko xaar pendant ñeneen ñuy valider mais mais pendant que la validation mais mais mais mais Fary bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu sous-estimer tamit capacité de manœuvre bi nekk tey ci ñiy sàcc. nekkatuñu comme démb ak barki démb ah. moo tax nag c'est des bandes organisées. yoo xamante ni leeral c'est-à-dire sàccatuñu. Mm-hmm. Mm-hmm. bande organiser te des fois dañ xool même arme yi ñuy utiliser. Mm-hmm. cest bu ñu jàpp ni démb ak barki démb comme gars yi nañ doon defee. léegi dañoo dañ ko def benn moyen boo xamante ni euh, mais c'est incroyable mën nañ la sax infiltrer cest à daf leen di jaral ñu jël temps di inspecter yoon yi fan la ñuy jaar ba jour bi ñu koy def yow dalay bett. moo tax li fondamental li nga wax sànq mooy au moins fi nga koy defee ci saa si lañ lay jàppee au moins la peur va changer de camp. oui benn la mooy li ngay rafetu sànq li nga xam te ne mooy force force de sécurité ak liggéey bi ñu ciy def te pour man. Mm-hmm. même ci seeni liggéey xam nañ zone yi nga xamante ne lii dafay faral di am. bien beneen bi mooy li nga wax sànq ñi nga xam xamante ne son préposés à la sécurité ci banque yi. Mm-hmm. am nañ ci role bu central bu ñu ci war a jouer ci ñi ñëw di leen fekk si. tey ñoo moo xam récupérer chaque wala lu mu mën doon waaye tamit jël liquidité ci benn somme bi y a un minimum de sécurité mhm. c'est-à-dire ñëw jël sa saag rek ko yéeg ci scooter dem pour man am na benn légèreté bi danger bi mu ngi njëkk nekk sax nga taxaw caisse justement ñu lay compter la alors que yenn somme yi dañ la war a dugal ci bureau normalement boo koy ah, gis nga ñu def ñaata nit lañu gis nga ñaata nit lañu waaw dañoo dañoo bëri ñu xëy yaa ci benn nit boo xam ne amul. expérience buñ la bëggee attaqué dañ lay la buñ jeex na man gëw ma sax yow nga génn si ak loo hmm. sécurité sa oto mën nañ ko toj. parce que ah. ñii dañ ko dañ ko dañ dafa prémédité. dégg ñu ne dañu dem Grand Yoff waxtaanee ko. Hmm. waaw bërki dem boo Ndiaye ci géejawaay kii ko xam ne def ay transaction ñëw ñu fekk këram ne ko andi saag bi. Hmm. parfois ñi def lii dañ lay xam dañ nekk dañ lay xam dama ragal ne dañ lay xam wala ñu am ku leen di informé ngay xam ne da ngay jël xaalis merci xam heure bi nga koy jël xam nga tey ku ñëw sa kër ne la andi saag bi fekk ban saag la lay wax kon ça veut kooku ne il a été informé que ne yow mi yow mhm. nga saag c'est ça man dama jàpp ne am na ku ku nekk ci suuf jàpp naa ni daal enquête bi bu ñu ko toppee ba mu sës dinañ ci trouver sax leneen loo xam leneen luñ ci seen voilà doy na waar c'est très important nit ñi nag dañuy bañ ko ko wax mais loolu lu am solo la euh, beneen bi euh, da ngay defaat beneen suivi de cas euh, Ngoné mhm. ci